waaw commité national de gestion des inondations la euh, boo xam ne bii euh, ministère de l' assainissement de de l' et de l' assainissement moo koy organiser waaye at mu ne daf koy def ànd ci nag ak ñëpp ñi nga xam ni dañoo am euh, taxawaay am jëf ju ñu war a def ci wàllu mbënd mi mooy inondation yi. ndaxte boo gisee woo nañ ci gouverneur u région yëpp ñoom itam ñu am liggéey bu ñu def foofu ci biir région yi xool soxla yi nga xam ne am na fa ak jafe-jafe yi xool itam li nga xam ne ñoom ñoo ngi koy commencé def ci ay action ñu ñëw présenté ñu liggéey ba nga xam ne def nañ ko ak plan d'action ya ñu fa yëkkati muy région yëpp Sénégal waaye ñu boole ci itam maire collectivité locale yi nga xam ni ñu ngi liggéey ci wàllu inondation amoon ci xam-xam boo xam ni itam jafe-jafe yi ñu doon am ñu ngi doon def seen kamtalaay kattan pour saafara ko ñu indi kuréel yi nga xam ni yëpp ñu ngi liggéey muy structure opérationnelle mu di boo ku mel ni ONAS ku mel ni euh, ADM agence de ak yeneen ak yeneen yoo xam ni yi bari nañu te ñuy liggéey ci mbir mi sapeur pompier armée nationale ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ci wàllu état bi ak ñu ci nekkul te wàll am xam-xam ak jëf yoo xam ne mën nañ ko def ci wàllu mbënd bi la ñu dajale pour ñu waxtaan pour que ku ci nekk nga indi sa xalaat liggéey ba ñu defoon daaw 2023 moom la ñu njëkk a càmbar ñu xool lépp loo xam ne defoon nañ ko ci jël ko ci ay matuwaay ci ay indi ko ci ay jumtuwaay yoo xam ne yii gis nañu ni baax na am na résultat dañu ko bind ñu ni nañ ko consolider defaat ko ba loolu gën a dëgër lépp loo xam ne nag daaw xëy na lu ci sooxe woon la moom itam jàngat nañu ko ba xam ko pour ni ren nañu def lu gën la ñu defoon daaw moo tax structure bu nekk def nga sa présentation wax li nga xam ne lii loolu nga nar def sur le terrain am na ñoo xam ne daanaka dàmbali nañu ñu ngi sur le terrain di mën a liggéey ak communauté yi. waaye itam dañu cee woo euh, ay communauté maanaam ñi nga xam ne ay acteur à la base lañu. parce que mbiru mbënd mi ci quartier yi lay am nit ñi ñoo ko war a jëlal en charge seen bopp lii nga xam ne moom la ñu bëgg indi ci démarche bu bees mooy lépp lu ñuy def dañuy fexe ba askan wi ci boppam mu yëg ko. mu mu jóg jàpp ci nga xam ne état bi bu ñëwee def ko ci fekk ci liggéey bi dimbali ko approche communautaire boobu nag ñoo ngi ñaan sénégalais yépp ñu xam ni fii ñu jëm mbirum taw euh, borom xam-xam yi bi ñu ko gëstoo gis nañu ni ren at mu nar a am ndox la at muy tooy la nawet bi macha allah nawet bu baax lay doon loolu nag dañu ciy sant yàlla waaye ndox mi ñëw tey indi lu baax ci askan wi mooy indi aussi loo xam ne mën na lor te loolu nag moom la ñu bëgg ñu taxaw ci ba nga xam ni képp ku ci am liggéey boo ci war a def ñu anticiper nga def ko moo tax dañu ni kuréel yi bu kenn tëju rek ci sa wàllu bopp nga ni lii mooy sama domaine moom la tuddee décloisonnement ku ci nekk na nga ubbeeku xalaat boo xam boo xam ni beneen kuréel moo ko war a def ngeen jokkoo ci ñu mutualiser boole ressources yi ndax ku ci nekk say ressource bopp du bari waaye bu ñu boolee ressources yëpp projet yi nga xam ni nekk nañu en cours te ñu jàpp ni war nañ koo yeggali ñu def ci suñu kéemtalaay kattan ak ñu mën koo yeggali maanaam daal ñu baral liggéey bi ci ñaar wala ñetti weer yii des pour que bu ñuy dugg ci hivernage bi incha allah fekk lu baree baree bari dina dina fekk mu sotti ndax loolu la jàngat di jëriñ daaw boo defee dara mu am lu baax da nga koy consolider dëgëral ko waaye la nga xam ne woon gis nga ni sooxe na nga teel koo gàttandu loolu mooy démarche bi nga xam ne moom la ñu taxaw ndaxte monsieur le président de la république dafa wax ni mbiru ndox de manière générale mu di hydraulique ak assainissement ci réew mi dafa nekk sur priorité boo xam ne bii lépp lu ñu war a def nañ ko taxaw te nañ ko baral te nañ ci ànd ak askan wi pour que ñu indi ci ay réponses maanaam li ñuy li ñuy ñaan ak li ñu bëgg mooy suñu suñu ambition hivernage bi ñu jëm ñu def ko ci ni mu gënee bu gën bi nga xam ne moo amoon daaw waaye bu ñu génnee nag loolu ñu commencé xalaat bu baax a baax ci solution yu gën a yaatu ndax bëgguñu at mu ne rek ñuy vivre la même chose war nañu fexe ba bépp gox boo xam ne daan am inondation te yépp identifier nañ ko xam nañu lépp ndax xam-xam am na fi boo xam ne bii identifier nañ ko à partir de bu ñu génnee li ak jàmm ñu commencé nag teg projet yoo xam ni dafay durable dafay yaatu te mooy fexe ba dootuñu wax wax inondation ci biir réew mi ci at yi ñu jëm incha allah.